alquran alquran téere mbokk yi daara ji di institut Fatima di jàngale alxuraanul karim yarum diine naka noonu it programme français ña nga ca Parcelles Assainies unité 12 ci ndakaaru ci weti jumaay Serigne Cheikh gi am nañ it daara ci Ouest Foire janoo foire bi di CICES institut Fatima di amal nag daar daaray vacances boo xam ne dina tàmbali ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru juin di jeex ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre 2022 incha allah daara vacances boobee dina fa am internat externat naka noonu ak ñiy yendu seenaw nekkin ñoom gune yi dina mucc ayib lool fanay fanaan ne ci sab lal ay néeg yu climatisé ci gàttal dinañ mel ni ne seeni kër njàng mi ci ñetti weeri vacances yi dinañ ci mën a liir xam xadis yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ci diine yarum diine naka noonu alxuraanul karim su weesoo daaray vacances ji institut Fatima day wéy ak programme am jàngaleem alxuraanul karim naka noonu programme français ña nga ca Parcelles Assainies unité 12 ci wetu jumaay Serigne Cheikh nekkit ci Ouest Foire jàkkaarloog foire bi ngir 77 920 10 40.